Moussa ngeen ci àndal ñu fas yéene ñëw tey seet si sunu boutique cosmétique yi waxtaan ak ñoom ci seen wàllu liggéey ak euh, ni muy demee saa su ne tey nag euh, ñu ngi boutique caat euh, mu sëriñ Babacar si moom la ñuy daal di dugg daat koy seeta di ziaraat kilifa diine kilifa aada di waat ñëpp àq nag di baalaat ñëpp àq di kontaan saa su ne soxna si maa ngi lay fay di la nuyu di la ziar di nuyu mbokk ñi nga àndal yëpp di leen fay bu baax alhamdulilah waaw kër ndaanaan moo déplacé wu ñëw fekk. waaw loolu moom da siy baax quoi parce que da si am solo parce que kër ndaanaan moom lépp lu mu taxaw dañu si war a fekk si ànd si ak ñoom quoi parce que liggéey bi ñuy def ak rafet na trop sa jaar na yoon tey da nga ñëw fekk soon suñu xeet produit quoi yu baax waaw parce que produit moom macha allah am na si am tooy boo xam ne baax na yëpp pour teint noir am na si boo xam ne pour da lay xeesal dépasse yi nga bëgg daal yaa xool moo tax dangay dangay ñëw nga wax fi nga ñëw fekk ñu defar ay calcul. waaw ah, ma gis fe xeetu diw bu nekk xale jigéen di bëgg a weex nga gis koo xam ne dafa bëgg teint noir lan ngeen koy ne yéen ko defar spécial la wala lan. waaw parce que bu fekkente ne comme peau yi nga gis ma teg ko fii moom am na pour teint noir bu dee peau moom da lay rek moo tax a jóg quoi bu fekkee ne da nga bëgg pour tee boo xam pour yaa ko defal sa bopp wala mélange boo xam yaa ko wutal sa bopp pour ANCAR da ngay jël base bi quoi baax na trop original bi moom moom baax na si kay sax trop une temps même fu mu fekk taas nii wala rew da koy dindi même pot grade da koy raxas ba mu set ok mais li ngeen koy jaayee seerul non bii moom bu dee bii seerul ñu ngi koy jaay ay 15000 mais bu fekkee mélange bi la pour thé noir bi ñu ngi koy jaayee 10000 mais bu fekkee bi lay xeetal ñu ngi koy jaay pot 25000 parce que parce que dafa baax mais mi ngi dox bu baax non waaw macha allah moom mi ngi dox parce que gis nga ñii dima woo nii sax xam naa si leen bëgg quoi parce que diw bu gaaw la quoi macha allah moom diw moom baax na trop. yéen a koy defar wala. non bii moom spécial ñun ñoo ko suñu bopp parce que mélange hydraté la parce que dafa am mélange yoo xam spécial mélange yi des na tax dañu ko teg suuf moom wax dëgg bu dee da nga bëgg teen waar lay moom macha allah moom sans tasse si bëgg it allah rabi di leen si génnee bu soobee yàlla ba nga si en benn problème d'accord ah, numéro bi dinañ ci ñëw léegi ah, tey di nga gis koo xam ne ni du yoroo lu mu doon jënd quantité bi mu dem ba benn instant nga xam ne mënatul mu bañ yaramam ñuul est-ce que bu ñëwee proposé leen di ko jox ba mu amaat waaw incha allah loolu dañ koy def parce que am na ñoo xamante ni tey bu la neexee nii bu fekkee da nga bëgg dara wala nga bëgg sëfa wala àllu mat doon fekkee di nga bëgg timis sa quantité matul bu la neexee tamit yaa xool lu li ba mat nga ñëw jël ab safa bi yóbbu bu dee safa bi la bu fekkee pour lay bi la bu la neexee aminta nga dugal ba mat nga ñëw yóbbu bu fekkente ne nag da nga bëgg pour ñu jox la ñun loolu du dara parce que ñun xaalis boole wuñu ak jaamu parce que dañ leen siy teral rek parce que affaire bi il faut ñëpp xaj-xaj loolu du benn problème léegi lan ngay waxaat say clientèle waaye sama clientèle moom maa ngi leen baax di leen ziar di leen fay di leen balaax parce que aw seen fay parce que ñi ngi déplacé wu ñi di ñëw ñi ngi déplacé ay Sànkan ñi ngi ay Kër Mbambalóor ñi ngi déplacé ñi ngi Jokkul macha allah daal parce que dañ leen rafetlu ci liggéey bi ñu def ñoom di jàpp seen combat parce que ñoom gis nañ seen taxawaay ci liggéey bi parce que clienté bu du woon moom a liggéey bi du dem ñi ngi seen kilifa gi diine gu baax nag Amar Fall parce que moom mooy teg si mais Kër Ndaanaan dafa nekk ak yéen saa su nekk ci liggéey bi pour bëgg ñëpp euh, bokk ci ndax seen yëf la yéen ko moom nee naa la booy wàllu yaan dafay fekk sa dëkk tëggul euh, te yéen euh, dama soxla ngeen nekk partenaire ak ak télé bi muy Kër Ndaanaan TV mu nekk loo xam ne ci seen biir gox la nekk mu bëgg nag saa su nekk lépp loo leen di def rek ñuy bëgg ngeen ci ngeen ciy jaar day am solo. waaw parce que loolu dëgg la parce que wax jooju boo ko waxee dama ciy rafet kër ndaanaan moom baatu kër ndaanaan foo ko déggee rek ndaanaan la parce que ñoom nag képp ku ci dugg moom wax dëgg si yàlla su ma ju naa man caat mu si bopp man Abdallah képp a gis ñu def moom macha allah sa imitant xéewal nañ seen liggéey set na rafet na tout le temps damay gis taalibe sëñ du waxantu ah, jàpp nga ne kon sa diggante kër ndaanaan ci kanam la jëm kanam la jëm incha allah loolu moom amul sax kan jëm kër ndaanaan moom man loolu maa ko man caat mu sëñ Babacar si kanam rek incha allah rabbi maa ngi kontaan seen baax di leen nuyu di leen ziar di leen fay di nuyu kilifa diine yëpp di nuy ñëpp nekk client yi ñoom faatu ñoom ñëpp maa ngi leen nuyu baax baax ok merci ni ñu leen ko waxee ñoo ngi woon fii tey ci butigu caat mu sëñ Babacar si saa su nekk nii lay demee ne naa la dañ koy yaatal ba mu yaatu ndax kër ndaanaan loolu moo ko tax a jóg pour ñëpp xaj ci te ñoom fi la ñu dëkk ci la ñu bokk jàpp leen na nag yéen ñëpp ci ngeen bokk kon daw si leen ngeen ñëw ayca sama gars yi ayca comme ni nga ko waxee ñu ngi waat biir centre commercial Adja Asto ba léegi ñëw seet si mbaaya borom friperie xale bi nga xam ne mooy jaay robb yu fashion yi di jaay tuba yu baax yi tubaar fa kàlla borom tëngee ca sama waa lay ziar mbaaya maa lay fay. ci loo ne sant yàlla wér. naka liggéey bi alhamdulilah. Ah, tey dañu ñëwoon seet si la eh, ci sa wàllu liggéey eh, nee naa la nii lay demee saa su nekk tey nga ñëw ci liggéey bi eh, fekk la fi nga def xeetu robe bu yëpp xale jigéen ñi di gis tendance bi noo koy xamee yow. waaw gis nga ne man de maa ngi nii rek Mbaye mu Serigne Babacar Sy nekk Tëngéej di jaay fëgg jaay bi yaa ma gën a xam daal waaw mooy loolu fëgg jaay bi daal mi ngi nii de ñu ngi nii di ko dund de. waaw parce que lii doo foog ne foog jaay la ndax bees waaw parce que bagage yi bokkul nag waaw am dafa am chinois am Dubaay te ñun Dubaay bi la ñuy dagg. Ah, moom ngeen di dagg te xale yi moom lañ gën a bëgg. waaw ah, Dubaay moom xale yi moom lañ a bëgg quoi. tey nooy dundee ak sa diggante client yi ñoom ñu ñëw bëgg. xam nga yi moom ni la ñuy demee rek parce que saa su nekk affaire yi moom gaañ liggéey liggéey ci ngay am nit ñi quoi te yàlla dogal na ñun waruñu xaalis bi man bokk dama part xaalis bi waruma ko. moom bu ma amee nit ñi rek mooy loolu quoi te nit ñi boo leen amee am nga xaalis ah waaw ah, ça le problème. bu ma la déggee li ngay jaay dara cher. non li may jaay moom ah client dañoo koy waxal seen bopp <laughs> waaw man yow moom mënoo wax cher. kon loo am sol. Ah, loo am sol fii moom loo am sol moom quoi dëgg yàlla robe yi moom xam nga robe yaa ngi fi chemise trois quarts yi combinaison yi balaz yi. lépp ngi fi daal xale yi xam nañ fi waaw. te xale yi dañ koy dafa mel ni di génn sax. waaw lii sax ñoo gën a bëgg. ñi nga xamante ni dañuy dem bureau di liggéey ci maire yeeg affaire yooyu ñoo gën a bëgg parce que bagage la quoi am nga mhm. qualité bi en plus tamit dafa yiw nekkul ay yére yoo xamante ne nga koy sol mënoo dem fii wala fee lii sol dem. noonu la dem tey Kër seet si la si si waxtaan ak yow ci liggéey bi ban yëg-yëg nga kontaan rek ak bett bi ma bett ci xaw a jaar moom maa ngi soog a jógee Dakar te xam nga nen sama jigéen la dafay ñëw ma koy jaay yu baax looloo tax bi mu ñëwee duma ko mën a yaam gën a xam daal noonu la demee. Eh, boo leen fii ñëwaat incha allah man kontaan naa sax. ñoo la gën a ma beddee nii macha allah wax dëgg yàlla moom. waaw présentation bi naaj na yow miy def émission bi tamit alhamdulilah quoi noonu la yàlla baax na. jërëjëf jërëjëf waaw. ñu lay delloo ziar. noo def. maa ngi fi. waaw li mooy mélange bi. kii mooy mélange weex tal xees pecc am teint bu rafet ba pare mélange dafay qualité. doom tache doom bouton. fii ngeen koy defar. fii lañ koy defaree. te yow yaa koy defar. amul benn problème fii lañ koy defaree. waaw su ko bëggee xanaa kay day ñëw rek ñu génne ko produit yu baax yi incha allah day ñëw génne produit yu baax yi ñu defal ko mélange bu baax mu am teint bu set wicc am teint bu nice. lan xale yi gën a jël fi mu nekk nii di ko diwoo. waa instant yi moom fi mu ne nii instant bi tey eh, moom day am yenn produit yoo xam ne si tey day ma mm, xam tey yaram yëpp tey du ñu benn day am ñoo xam ne si tey il faut te ñu jël tey produit importé pour ñu mën a xees am ñoo xam ne produit importé day leen allergie. ñi produit moom yi nga xam ne si ni si tey moom produit Côte d'Ivoire ñi da leen di jig ku nekk ak daal li adopté ak sa peau mais ñun moom boo ñëwee fi moom li adopté ak sa peau ñun buñ la xoolee rek après dañuy xam lii lii moo ko indi lii lii moo ko waral dañu xam ni lay tegee ci code bi jaayoo leen ay diw kese gis naa fi or yéen a ngi jaay or en même temps xeetu plaque yu baax yëpp mu ngi fii waaw man nag yàlla dafa def nag damaa ñëw juddu fekk fi ñuy jaay or fekk ñu jaay plaque bu baax moo tax ñun buñ defee noonu rek di moom bu ko defee dañuy daal di xam moom qualité yu baax xam nga tey bu fekkee ordre am naa 18 importé am naa 18 local am naa 21 vingt 21 local boo amee moom 18 carats 21 carats 24 carats yëpp dama koy faral di am. tey nga gis waajur bu góor di tàggat doom ci yenn yi ba teg ko ci place mu nekk fi tey bu ma fiy ñëw maa ngi gis sa waajur bu góor mu wax ma loo xam ne ni euh, tey jàngat la ci manaat ci lay doonaat ci man euh, tey waajur teg la ci place liggéeyal la façon liggéey bi tey ba nga mën fa toog mu delloo leen lépp lan ngeen koy wax. waaw instant moom waajur leen di sant rek di leen gërëm ndax man yaakaar naa waajur nen la doom nen la waajur xeer la yaakaar naa doom bu dalee si kaw waajur day toj waajur bu delee sa kaw da ngay toj kon doo def lu dul nga delloo ko njukkal doo def lu dul lim la tere bàyyi lim la sant defal. tey ma fekk seen papa mu teg leen ci condition bi macha allah ah, tey bàyyi yéen tamit yéen a ngi rêvé teg ci seen njaboot ndax li yombatul ndax waajur yu nekk day day bàyyi doom di demal boppam mais tey papa di ñafe ñaata at mu nekk ci métier bi ba yegg si fii mu yegg si tey teg leen fi tey loolu lan la defaat tey ci yéen ba léegi ndax ñaan ngeen yàlla am njaboot def comme seen papa nu leen def. Hmm. waaw ndax boo gis compté bu ne du yam ci benn tey sa papa bu fa defee un war nga mën a def cinq ndax ndax Seydi dafa wax mu ne boo juddoo fekk sa baay am kër jéemal def noo amee kër mais bul toog sa kër baay góor gu ne man yaakaar naa yow hmm, war nga mën a dépassé may ma nag doom bu ne boo juddoo war nga mën a wax ne man sama waajur bu amul sax damay am loolu fii lay ne si xool sama waajur bu amul damay am yàlla nag mooy may ñëpp même bu fekkee da ngay xëy sax amoo may del compter pot làmp yi su yàggee nga am liggéey est-ce que dégg nga am na solo dégg naa la bu baax tey mu nekkaat loo xam ne nii Ndanane TV euh, tout le temps da koy bëgg def ak yéen parce que biir Tëngéej la nekk mm. euh, ban yëg-yëg ngeen amaat moom mu ñëwaat fii fekk si leen euh, di waxtaan ak yi waa kooku moom dañuy kontaan moom ci serse bi ngeen ñi serse ba dëgg yàlla moom rafetlu naa ko te seen tele bi yàlla dem ba doon ay télé yi nga xam ne sii tey foo tool ci Sénégal da leen di dégg wa dëgg yàlla moom kontaan naa lool moom te rafetlu naa ko li nga def ni tamit moom yàlla na yàlla gën a jëmale ci kanam ngeen dem ba li ngeen wutu yow tamit li ngay wut ci ndax. yaa ngi dégg ba démb jaay le 8 mars ñu wax ci jigéen ñi mais dama cee yow nga doon jigéen boo xam si tey yaa ngi daan doole ba def sa jamono kontaan naa si loolu. am na solo gis ngeen ko tey nii lay demee saa su nekk nee naa la Ndanane TV dafay xajal ñëpp ndax ñëpp ci la ñu bokk nee naa la dañuy yaatal saa su ne tey ma ñëwoon ci Loum et Frères seet si leen ci seen wàllu liggéey mais gis naa fi xeetu produit bu nekk xale jigéen ñi boo leen bëggee xees yaakaar naa moom dina leen expliquer lan moo leen xeesal sama. maa ngi leen di nuyu euh, produit moom. de différent kese la day am produit yoo xam ne produit euh, yoo xam ne dañu koy recommandé par dermato comprendre nga produit yooyu dañuy éclaircir ndànk-ndànk am bi bi sérum la quoi sérum essence la sérum boo ne moom mooy base bi sérum bi moom ngay utiliser 5 minutes après nga jël sa mélange wala sa leeru corps bu baax nga tekk si kaw day tax éclairci bi day gën a gaaw quoi su nekkee kii savon mix fruit la moom tamit produit thaïlandais la en même temps tamit day éclairci comprendre nga ñoom ñaar lañuy mixé day dindi taches noires yi ak euh, yenn taches dëgër yi yooyu yëpp da koy éliminer waaw su nekkee kii moom moom moom la naan pâtisserie araignée moom produit bi éclairci la mais day éclairci lentement en même temps day protéger su nekkee da nga da nga doon diwoo hydroquinone day protéger sa peau day rajeunir su nekkee da nga doon diwoo hydroquinone comprendre nga nga arrêté hydroquinone bi soo ko jëlee après da lay noirci parce que day réparer hydroquinone bi lay dindi ba mu set après boo jiwee trois butéel moom moom soo gaawee découragé doo continuer parce que soo demee pharmacie sax di nga ko fa fekk dañ ko protéger moo tax comprendre nga waaw bii tamit pareil François Bono ñoom ñoo bokk fu ñu jógee rek ay les paris la kii les tamit les maquereaux la les de luxe la moom ci pour teint marron la mais day am tamit en même temps les bi waaw fii rek égyptien masigold la yooyu léegi yëpp au top la nekk comprendre nga bii ñu ngi ko defaree ba Égypte moom tamit day éclairci moom soo amee trois sérum différents rek. seerul. noo seerul même pas yi moom bii rek moo seer ah bii moo seer mais yëpp ay moyen 15000 la yëpp ay moyen 15000 la. Mhm. day am fii tamit yenn bagage yu baax. Mhm. Mhm. merci beaucoup kon ni leen ko waxee saa. ay ca comme ni ma leen ko waxee tey dañoo yoon ñëw seet si tey cosmétique yi. ñu ñëwoon nag ah, tey kër Loum et frères ah, tubar fa kàll ñu accueillir ñu accueillir bu rafet ñu leen di gërëmaat te contentement di santaat yàlla bu baax a baax di gërëmaat suñuy waajur di santaat kilifa diine kilifa aada di baaluwaat ñëpp ak ñi jiitu suñu borom yërëm leen ñi fi des suñu borom bàyyi leen fi ah lépp lu fi jub ndimbalu suñu borom la lépp lu fi dëng système amita mu xeebu la may baaluwaat ñëpp ak di kontaan di kontaan sama caméraman di kontaan sama doomu maan ma àndaloon di leen béggee Kër Ndanane TV nii lay demee saa su nekk xaar ma si facette bu nekk dama fay daal di ñëw jërë ngeen jëf ba beneen